jël fa cinq personnes ñi nga xam ne li ñu naan comité de vigilance ñi nga xam ne man maa leen di solal tenue maa leen di formé jox leen accessoires yi jëlee tey da leen di formé chaque heure même bu nekkee kër bu nekk joxe ne symboliquement 2000 francs li des ci société bi dina ko jël en charge chaque heure pick bu nekk dina ñëw dugg ci koñ bi def li ñu naan relevé d'information nee naa la loolu boo ko doon def dootoo déggati benn mag buy xëy fajal ñu donc moo gisee ki nga xam mooy Bara Gaye ñu yore commune bi ak effort def. non xam nga yéen man loolu lay faral di wax Bara man yéen boo leen naan dafay def ay effort kooku mais kooku nekkul li xam ne ne dañoo war a nekk fi di ko si sant di ko gërëm kooku kooku euh, devoir am la parce que tey yéen population yëngal yéen ay mais gis nga Bara man li may xam man fan laa xaw a fan laa xaw a inquiétude yi mooy yi il a été au pouvoir. pendant 12 ans sous le régime de Abdoulaye Wade. Il était rattaché au cabinet de Karim. Et Karim, il était en ce le ministre des mines, il était ministre des infrastructures, il était ministre du transport aérien, il avait tous les ministères entre ses Et Bara, il était son Donc je pense que Bara, s'il avait un peu... Euh, yaakaar naa ne Bara instant yooyu bu jëloon tuuti si vision wu président Abdoulaye Wade rek tey yëmbal banlieue yëmbal tey dina nekk banlieue bi nga xam ne moo gën a développé si mais gars di dañuy nekk foofu di yenu di yenul kilifa yi seen saag yi foog ne nguur du jeex lii du dul nguuru yàlla rek moo dul jeex. mais mais non manquement yi man nee naa c'est au de la sécurité parce que xam nga tey sécurité on parle de un normalement c'est un policier pour 1000 habitants loolu la état wax mais ici au Sénégal c'est un policier benn policier pour 3800 habitants la donc ce que tey policiers yi. munu état mënul jël benn policier teg ko si génn ginnaaw citoyen yi nekk mais tey dëkk boo xam ne amoo sécurité amoo santé yow dundoo tey boo amee sécurité boo amee santé mais loo ci dolli bénéfice la loo ci dolli bénéfice la donc man du question ne ñëw na xam nga ba la ñëwee ñu ne noo tabax na benn collège ñu ne tabax na benn collège da fait que tabax benn collège kooku c'est pas nekkul li xam ne dañ si war a sant gërëm kooku c'est une obligation parce que boo bëggee am jeunesse bu nga xam ne bu taxaw la te obligé déjà nga mettre toutes les nit ñi ñu mën a nekk si jàng fii te yëmbal fii ñaata booy ñoo dee si gaal bi mais yëmbal moo nekk banlieue bi nga xam ne moo moo fay gën a cher si ñi nga na ne ñoo dee si gaal bi donc yooyu man je trouve que c'est un échec faut pas qu'on ait de dire les c'est un ki naa la wax dara c'est boo nekkee fenn nga gis ne yow li ñu la dénk li mënoo mais tu rends tu tu tu tu tu rends ce qu'on problème bi mooy ñoom tey amuñu métier je m'excuse hein parce que tey man tey man maa ngi laaj maire yëmbal man nee naa je veux je veux pas être payé man je veux travailler bénévolement pour la ville. man dama ne dama bëgg a ñëw tey nekk maire yëmbal mais bëgguma commune bi di ma fay man dama bëgg a ñëw liggéeyal askan bi mais nit ki nga xam ne yow wóor na la yow tey tey boo bàyyee sa mairie bi tey t'as pas de bu ñu waxee nga ne consultant mais consultant en quoi. il faut qu'à un moment a nit ñi di delloo seen xel et puis savoir raison garder man yaakaar naa ne à un moment donné loolu duñ ko defee rek yëmbal ñu koy dégg si yeneen anam pas pas li wax ne moom ne tey na ma yàlla baal suñu maam yi nekk fii tey koo ci yee tey si Almeri mu dellu këram parce que y a rien qui a changé au niveau de yëmbal ici euh, non xam nga bu sécurité